sen seen wàccuwaay di uh, am contenté eh, ak mbégte tay ci ndaje bi nu ko Babacar mbeng waxé di tête de liste bu département de Dakar je crois que nu mu ko waxee ñëpp mën nañ sédé que lolu mo am tay ci dëkk bi on té man dama leen bëggoon artu rek ci ñaar ba ñetti point lutax ñun ñuy sàkku ci mbokk yi ñu wotel ñu coalition sàmm sa kàddu coalition boobu moom mooy xëcc tey lu ñuy woy la bannière daanaka ci coalition boobu takku wàllu mi ngi si ah, jàmm ak jëriñ mi ngi si noonu nag jàkkaarloo ak benn list bu fu woote woon jub jubal ak jubanti tey yéen ñëpp xam ngeen est-ce que tey biir réew mi am na jub jubal ak jubanti jub jubal ak jubanti su amoon tey ci biir réew mi du ngeen fi dégg scandalu ONAS du ngeen fi dégg scandalu Azer du ngeen fi dégg scandalu port kon nag seen kilifa mooy kuma ngénte tuddee ko Mimi moom ci boppam sax amaana dinaa ci yokkaat beneen mi parce que lu ma gëm mooy daanaka nit mën na nekk di dox ay soxloom amaana am na feebar bu mu xamut parce que ba may wootee Mimi am na lu ma leen waxoon mën na leen emm bi mooy lu tubaab di wooye menteur wolof di ko di ko woy fenkat i bi mooy lu tubaab di wooye incompétent wolof di ko wooye mënul xamul beneen m bi mooy lu tubaab di wooye manipulateur wolof di ko wooye dóorkatu marto beneen i bi mooy lu tubaab di wooye incapable wolof di ko wooye tële man naan man daal nee naa danaa ci yokkaat beneen mi mooy maladie imaginaire parce que nit ki mën na dox

ngeen wutal ñu benn son de campagne parce que suñu coalition mi ngi tudd sàmm sa kàddu VAR VAR bi nag di valeur pour une alternative républicaine VAR dafa am solo parce que fu dëkk bi tollu tey il faut que xale yi particulièrement ndaw yi parce que ñoom la ñu jot a nelawal nañuy gestu VAR yi nañuy partager VAR yi nañuy saytu VAR yi parce que nag dama ne man nga fen ba jot ci réew loolu mën na nekk wante mënoo yor réew ci fen fii ñun ñëpp ay jullit lañu moo xam catholique xam musulman képp kuy julli yaa yow mi nga te ñun ñuy ci le même Dieu mooy le miséricorde na ngeen gestu xool lan la alxuraan wax ci fen ngeen gestu xool lan la bible bi wax ci demee imaginaire da la fen fen fen fen ba Dakar Arena jakalo ak askanu Sénégal di bàkkoo ci sa ay fen taxaw ne yow dara dal yow nag dara su la dal am benn feebar waa ñu lay ci couvre-feu ci weeru koor loo fa doon def yow mii yaa ma waxoon man mii da am feebar dellu si waat nekk musoo am feebar kon nañ ko déggee noonu lu alxuraan mënul nangu lu bible mënul nangu ñun askanu Sénégal noonu nañ am fulak fayda ba mën a fësal suñu diine loolu moo am solo parce que ñii su leen mayaatee ndam mooy ñun ñii wedd nañu alxuraan weddi nañu bible daanaka ñun ñii nangu nañu ko suñu biir société ab fenkat am na fi place parce que nag ku fen fen fen fen ba 83 doomu Sénégal ñàkk ci seen bakkan nga taxaw ne da nga doon tappale yow mii nag yaa ñàkk ko jom motax tax mbokk yi ñuy euh, sakku ci askan wi nañu bayyi xel ci ñu fi nek duñ fi jott liggéey ci juroom ñaari weer yi ci juroom ñaari weer yi daanaka chômage bi yokku na baromètre buy mesurer employé ak di ko comparer ak chômage bi daanaka chuté na de 5,1% virgule 1 pour cent te ñoom duñ ko weddi lii di BTP ñoom ba ñu ñëwee dañu daldi di arrêté bépp chantier bu amoon particulièrement biir Dakar lépp nag ci ay xeetu dóor marto BTP ñoom seen euh, baromètre daanaka ñoom wàcc nañu de 26 virgule 3 pour cent port ku fa nekk moom xam naa day jaawale lii di administration ak lii di daanaka taalibeewu benn partie bu ñuy wooye Pastef kooku ci juróom-ñaari weer yi def na kenn kattanam ba 40 pour cent bu port activité yi wàññeeku.

incha allah le 17 novembre 2024 ñuy sàkku ci mbokk yi ci yar ak teggin ci jàmm salaam na ngeen woote fulla ak fayda mooy sàmm sa kàddu jërë ngeen jëf mbokk yi.